الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen bokk yi ni seetaan ci réew mi ak ci biti réew foofu waay manti nekk rek ñu ngi lay nuyu nuy bi gën a sell tey ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu may nu nu yendu ci jàmm te fanaane ko di ziar suñu kilifay diine yépp nag di ñaanal kilifay aada yi di ci jiital ki yàlla teg ci boppi réew mi muy son excellence le président Macky Sall ba ki gën a suufee kenn ku ci nekk lépp lu ñu la jox pour defar réew mi yàlla na ci yàlla jàpp yow min ko joxit nga jàpp ci bee lépp sotti Sénégal jëm ca kanam di ñaanal ñi feebar yàlla na ñu wér ak jàmm di ñaanalit sénégalais yi nga xam ni la foo dem ci àdduna bi fekk leen fa te nga tax leen jóg yal na leen yàlla musal sàmm leen te ngeen dajee ki xéewal bi ñibbi suñu tabax suñu réew di sant yàlla bu baax moom mi nu may ñu dellusi di ko santaatit li mu nu def nu doon doomi senegal ah, xam ngeen ni nag émission bi yeex naa tàmbali ndax sàcc bu mag bi moo fi sàcc 20 minutes muy Pape Sidi Fall ah, sàcc na sama 20 minutes waaye garaawul ndax ah, moom noonu la ko yàlla bindee day nax ay mag rek te duñ ca man dara Eh, waaye nag ñuy sant yàlla parce que tey jii di 27 juin min 2022 euh, moo tombe ak téeméeri at yi Seydi Hadji Malick am ci suuf Seydi Hadji Malick mi ngi ganee àdduna gaaya 1855 soo demee gaaya sax dañu lay wax ne bis bi Seydi Hadji Malick ganee àdduna ci la ndata yàlla mbooj doon xeex ak Faidherbe muy 1855 ñoom dañ ko tuddee xaretaar ci at moomu ci la Maodo gane àdduna e Seydi Hadji nag bu ñuy waxtaan ci moom dañu koy def étape par étape c'est-à-dire gaaya pourquoi gaaya parce que Seydi Ousmane mi baayam jamono jooju nitu diine ñi bu ñu masaan a dégg ni am na téere bu bees ci daara sàngam dañ fay jawal di ko jàngi loolu moo yóbbu Seydi Ousmane mu dem ci góor gi Malick Sow ca gaaya di fa jàng téere bu ñuy wax ixmiraar di grammaire arabe ba yàlla dogal mu gis fa soxna su baax soosu soxna fa wàdd wele te signe yi mu gisoon ci soxna si mooy soxna si suy dem ci dex gi jigéen moroomu jigéenam yépp dañuy wax seeni sër waaye soxna faawadd wele daf daan dugg akub sëram noonu ci biir ndox mi waaye du wokk ay yéreem Seydi usmaan dem ci Cerno malik Sow ni ko suma sañoon ñu jox ma soxna si ndax jamono jooju soxna si sax dégg naa ci li ñu ma nettali demoon na sax ba ni moom daanaka soxlaatul boroom kër ndax booba fekk na mu am doom bu ñuy wax Abdou Booli Fall waaye Seydi Thierno malik Sow waxak ay bokkam ñu ne ko ah kii daal wax dëgg yàlla ab jolof-jolof la dëkku fii waaye nag mu ni leen daal kii li ko fi indi mooy diine te man doy na ma su ngeen ko ko mënee jox ngeen jox ko ko ci lañ ko joxe soxna fa wàdd waaye bi Seydi Hadji malik di gane àdduna fekk na Seydi Ousmane dem na fekkewul juddoom waaye joxe woon na nag ay ndigal ni su fekkee gan gi ñëw na su dee góor nañ ko tudde Thierno Malick Sow mi ma doon jàngal téere Ixmiraar su dee jigéen nañ ko tudde sama jigéen Mati Mbakke Seydi Hadji Malick juddu nekk góor ñu tudde ko Thierno Malick Sow foofu la jànge alxuraan bi mu jógee gaaye it étape bu am importance ci dundu Seydi Hadji Malick mooy Ndar kër sàmba Jéeri Jeng góor gi Massamba Jéeri Jeng moomu mooy góor goo xam ne gu mat a xam la maa ngi dégg sànq Pape Sidi Fall naan Seydi Hadji Malick kenn xamu ko kenn xamu ko moom moom si boppam moo ñaan yàlla ni ko yàlla buñ ma xam fii kon Seydi Hadji malik il faut que ñu umpule ci moom lu bëri waaye étape boobu ci ndar kër góor gi Massamba Jéeri Jeng lu baree bari Seydi Hadji Malick def na ko foofu kër googu it wàll yi nekk senegal yépp dugg nañ fa Serigne Touba dem na fa Seydi Hadji dem na fa Cheikh Saad bu dem na fa maanaam kilifay diine yi ne woon ci réew mi néew na ku ci jaarul kër góor gi Massamba Diéry Dieng Massamba Diéry Dieng moomu jox na doomam bu jigéen Seydi Hadji jox doomam bu jigéen Serigne Touba mooy soxna May Dieng moom la moom la Serigne Touba duppee soxna May mi nga xam ni mi ngi siiwee ci laylatul xadri Massamba Diéry Dieng moo jur ñaari ñaari ñooñu jox kii Seydi Hadji jox kii Serigne Touba waaye soxna May Dieng moom bin ko yóbbul Serigne Touba jotul yegg ndax yàlla dafa jël bakkanam ci yoon bi e bu ndar boobu nag ci la Seydi Hadji Malick ndar dem dëkk bu ñuy wax ci la daramaan li ko indi njaarnde la ko sabab bi mu ñëwee ci la daramaan eh, di fa jàngi ab téere daje fa nag ak góor gu baax gu ñuy wax góor gi Mama Joor Amar góor gi mamajoor Amar mooy darmanko yooyu dëkk gàdd yel ak euh, njaarnde ak jéemul ak i naamee nag ñoo euh, dëkk yi nga xam ni mooy ndiineeg yooyu yépp ci darmanko yi la bokk góor gi euh, ma maam Amar moomu nag moo gis alaaji Malick ci la daramaan waaye li mu seetlu bee bëgg ko mooy Maodo bu ñu mësaan a jàng ba war a noppalu gaa yi dañ doon dajaloo ñii di waxtaan ci àdduna ñii di wax leneen ak leneen Maodo wéet di tudd yàlla ak a bind ci rasulullahi sallallahu alayhi wa te jamono jooju kajoor dafa xumboon lool ndax xam nga njaarnde li ko wër mooy mbul sugeer jajj dëkk yu jamatil ak ngi gis paleen dédd nga xam ni dëkk yooyu yëpp dëkki ceddo yi la woon te xiin yi bari woon nañ fa lool góor gi maam ma joor amar nag ñaan Seydi Hadji ni ko dama bëgg nga ñëw kajoor wax dëgg yàlla ndax diine day des na fa alaaji Malick ni ko dafa am lu may def ndar de dinaa dellu ndar waaye bu yeggee dinaa ñëw njaarnde alors bi mu delloo ndar ci la góor gi maam ma joor amar nag xam nga dafa yoroon daara <coughs> waaye commerçant la woon te booba ci saxaar gi ngay dugg Euh, dem kel boo dem ñëwee ba kel da ngay dugg ci saxaar gi dem ndar jëndi sa marchandise boo retourné wàccaat ci gaaru kel boobu alors euh, bi nga xamante ni nag góor gi Mama Joor dem na ndar ñu ne ko ah yow de sa waa ji mi ngi mi ngi ndar mi ngi kër góor gi Masamba Jéeri Jeng ci la góor gi Mama Joor Amar deme demee ci kër góor gi Masamba Jéeri Jeng laajte Seydi Hadji ñu won ko ko mu ni ko nag ah la ma la waxoon ca njaar nde de moo ma indi damaa dégg ni yaa ngi fi mu ni ko nag lama la doon wax it noppeegut de waaye da ngay ànd ak soxna Roqoye Njaay bu ko defee ngeen jiitu ma balaa amub diir bu soobee yàlla dinaa la fa fekk ci la góor gi maam ma Joor Amar àndeek ak soxna Roqoye Njaay soxna Roqoye Njaay mooy wayjuru sëriñ Babacar si wu jigéen moom musta teg tànkam fii ci Tiwaawan ma nga ñu denc Louga alors euh, bi nga xamante ni yóbbu na eh, eh, yóbbaale na soxna Roqaya Njaay mu toog fab diir ci la Seydi Hadji Malick départ Saint-Louis nag wàcc kel keroog nag lanu la lanu sunu maam góor gu ñuy wax Aliou Tall ñu gën ko xam ci maa bëgg Maodo Tall keroog ci bis boobu ci la gis Seydi Hadji daanu ci moom leer ndax fekk na mu am wérdu tiijaan woo xam ni góor gi saak kokki gajaga moo ko jox waaye bi mu gisee Maodo dafa mel ni dafa gis leneen mu ñëw jox ko loxo ni ko sëñ bi tur wa mu ni ko Malick sii laa tudd Seydi Hadji Malick ni ko yow sa tur mu ni ko xanaa bëgg Malick man dem naa ba am fanweeri at xamuma ni sama baay sama maam jooju Aliou Tall la tudd waaye ñun ñëpp maa bëgg Maodo lañ koy woowee léegi si do sëtam yëpp maa bëgg Maodo la ñuy wax keroog la jël fas bi mu waroon am na ñu ni fas la am na ñu ni gëléem la parce que bëgg Maodo dafa bari woon alal dafa bari woon ay fas dafa bari woon ay gëléem dafa bari woon ay nag dafa bari woon ay xar ku yàlla mayoon wërsëg la keroog la teral Seydi Hadji Malick en 1895 muy dem Njaarnde ci góor gi Mame Madior Amar et suñu maam jooju parce que maa ngi invité woon sax fii euh, Seydi Aboubacar Tall di doomam nekk imaamu ratib bu Bambey waaye nag mu am ngant invité woon naa aussi alaaji Ousmane Ñang bu ngeet moom it mu am ngant ndax sëñ a a ada Euh, euh, Seck defe naa la tudd te nekk tay ba fële ca toolam ya ca ca ginnaaw daara moo wàññeeku ci fajar moo tax ñëwut waaye xam naa ci kanam peut-être mu ñëw bu ko defee ma boole ko Pape Sidi Fall ah mu jéem a def ak moom dara ndax moom itam ku bind lu baree baree bari ci Seydi Hadji Malick la kon Seydi Ousmane ñu ngi lay jaal bu baax sa mbokk moomu yal na yàlla xareel ko aljana et eh, maa bëgg Maodo nag il faut ñu taxaw ci parce que mbir la la ca boole daf lay ñor ndax man Tiwaawoon ku fi xejj laa ku fi xejj laa te ku fi dëkk xam histoire Seydi Hadji Malick xamaale nga suma histoire maam sama maam ñëw na fii yor fas ñuy dawal course mu ni damay damay dawal ñu ni ko maa bëgg Maodo wii du fasu course de mu ni fas wi du daw Maodo raw fas wu ko nar romb daanu moom ci boppam mu ni Seydi malik Malick ma la nga gaañ fasu jàmbur dama laa wax ma raw waaye bu benn fas gaañu ñëw na fii fekk ñuy defar barabu Seydi Hadji Malick bi mu génnee àdduna fekk sëriñ Babacar moo ko woolu bi mu ñëwee sëñ Babacar ni ko ah maa bëgg Maodo mu ni ko si mu ni ko ah sa góor ga dem na de nooy def mu ni ko sama góor ga dem na waaye xol bi fees na ci ba leneen xaju ci maanaam xajalul kenn ci bëgg ki mu bëgg Seydi Hadji Malick ba Seydi Hadji Malick daf doon wax nit ñi ne leen bu kenn waxati maa bëgg Maodo ni ko gënoo ma bëgg Alaaji Malick ndax moo ma gën a bëgg ndax gëléem nga am nañ fi cër boo xam ni cër bu rëy la boole kook it doomam bu ñuy wax Aliou Tall nekk imam rati bu Bambey nga xam ni doomam laa invité woon fii muy Seydi Aboubacar doomam boobu Seydi Hadji Malick dem na ba dénk ko këram dénk ko jigéen ñi njaboot gi dund bi te l'intendant de Seydi Hadji Malick muy góor gi Aliou Tall boo demee Bambey séréer yi ne boor boobu yépp ñi ci ëpp moo leen tuubal moo njëkk a tabax juma à Bambey te moom moomu maa bëgg Maodo moo jël loxob góor gi Alioune Tall indi ko parce que bi ba waajuram génnee àdduna ndax waajuram ak euh, ala maa bëgg Maodo ñoo bokk ndey ak muy góor gi Amadou taal bi mu génnee àdduna góor gi bëgg Maodo daf ni Alioune Tall dama lay ubbil bitik nga def commerce mais bàjjanub Alioune Tall moo ni ko ah baayam waxul woon lool de baayam dani woon daa bëgg mu am xam-xam mu ni ko ah xam-xam de sama góor gi rek moo ko am moo ma nga ca Tiwaawoon ci la takku fasam indi góor gi Alioune Tall fii dénk ko Seydi Hadji Malick bi ñu demee ba am quelque années ci la Seydi Hadji Malick dajalee góor gi Ahmed Sarr góor gi euh, góor gi euh, Seydou Nourou ak euh, góor ga Diop ni leen dama bëgg am ku ci xale yi ku ma dénk kër gi ma bëgg ngeen seetal ma bi ñu xëyee ñoom ñett ñépp ñu dajaloo ni ko ah wax dëgg yàlla ñu ne ki du gis mooy Alioune Tall mun leen man it de moom laa jàppoon waaye xam nga Maodo dafa démocrate moom la sama xel ne woon waaye dama ne naa leen laaj seen xalaat yéen it keroog la ko alaaj Seydi Hadji Malick dénk kër ga benn mu génne àdduna moo yor lépp euh, góor gi Alioune daf daan wax ni alaaji Malick mosumaa jox xaalis ni ma bu desee déedéet ni ma ñaata moo ca des non non non daf ko naan la ma la joxoon bu ca dara desee defal ma ca lii bu jeexee baax na bu desee baax na moom la gënoon wóolu moo tax ñun ñi sant taal lépp lu xew Tiwaawoon dañuy jàpp ni ngol-ngol a xewle ndax euh, boo demee ngol-ngol di fa fekk tur yu bari yoo xam ni Tiwaawoon lay ñibbisi muy Abdul Aziz Tall muy sëñ babakar muy sëriñ Ahmed si maanaam amul benn tur doomu Seydi Hadji Malick bu xamul ngol-ngol Alaaji Abdul Aziz si Dabaax bi ñuy denc sama magu baay keroog laa ko njëkk a gis mu ñëw ngol-ngol toog ci bàmmeelu maa bëgg Maodo. moom alaaji Abdoul Aziz mooy wax de mu ni góor gi tëdd fii ñun ñëpp ñuy déglu mu ni bu alaaji Malick doon mbaar ma ni ci jën yi ko téye ci la bokk kooku moo jur suma baay moo tax wax dëgg yàlla ñun euh, cent ans yi xam naa Seydi Hadji Malick la ñuy fàttaliku waaye fokk nu fàttaliku waale ci sunu maam ji nu boole ak moom sunu maam ji tax nu feer ci bëgg euh, Seydi Hadji Malick parce que Seydi Hadji Malick fi mu ne sëti maa bëgg Maodo yi nekk Murit ak yi nekk Tidiane ñoom ñëpp bëgg Seydi Hadji parce que Seydi Hadji Malick euh, Pape Sidi maa ngi ko doon wax sànq dafa am lu ne ci moom lool euh, dafa neex te as loolu moo koy bàccis gor mooy nawloo Seydi Hadji dafa nawloo nit ñi mësul yëkkati boppam mësul teg boppam ca kaw mësul teg kenn ci suuf teg boppam ca kaw Seydi Hadji Malick bu taalube masaana ñëw ci moom ba miir miir ma lay njëkk dindi ni ko dalal fii kat ab jaam képp nga fi fekk buy jaamu yàlla bëgg nu ànd man ak yow jaamu ci sunu borom Seydi Hadji Malick daf daan defar nit ba mu mat sëkk ba fees del mu yebal ko cim réew jël doomam bu jigéen jox ko ko soxna te loolu bariwul sëriñ su ko daan def kon Maodo dafa dafa jox nit cëram moo tax nit ñi ko xamoon Seydi Hadji Malick jaraloon na leen seen bakkan ndax melokaan wi mu amoon gis nga mbirum tool yi ngeen doon wax ak mbay meeg liggéey bi Seydi Hadji Malick lu mu dëkk boo bëgg mu dëkk fa d'abord li nga koy jëkk a lijjantil mooy fu muy daane dooleem daf daan wax ni sama ñaq wii laa bëgg di dunde keroog bi mu ñëwee fii nga xam ne mag ñee ko man manee jëlee ko njaarnde ñoom góor gi Alioune Guèye di sama maam ci ñu ko indi fii ci la bokk bi ñu ko indee mu leen ah man de wax dëgg yàlla mënumaa ne ci dëkk boo xëy du ma am fu may daane sama doole ñu ne ko ah réew mi day Demba Waar a ko yor fi mu ne nii tama nga sàq ndax bi Lat Joor daanoo le 27 octobre 1886 tubaab bi dafa dénk la territoire du Kajoor le royaume du Kajoor gépp daf ko jël dénk ko Demba War Sall waaw waaw Seydi Hadji Malick fii ànd ak Abdou Booli Fall magam ñu yor wenn fas bi nga xamante ni ñëw nañu <laughs> Seydi Hadji Malick ni ko euh, euh, euh, Abdou Booli yéegal mu ni ko ah ma yéeg fii ci sa kanam taalibe yi ngay dox loolu duma ko def mu ni ko manit du ma yéeg kat sans mag di dox ñu ñu womat fas wa ñoom ñaar bi ñu demee ba egg euh, sàq fekk dembawaar am na quelques jours mi ngi doon wax ni ma ne waa ji may dégg Tiwaawan dama koo bëgg a seeti waaye bi bëkk néeg bi gisee Seydi Hadji ànd ak Abdou Boli Fall ñu ñëw ñu ni ko dañuy dembawaar Waar lan soxla jëw mu daw daal ni ko jëwriñ jëwriñ la ñuy wax woowee Demba Waar jëwriñ dembawaar Waar Sall bi mu ñëwee ni ko ah jëwriñ yow kat sëriñ bi nga doon laajte ci Tiwaawan far na ñëw bi Demba ñëwee gis ñu yor wenn fas fas wa sax taxu koo suur ci jamono jooju Demba Waar ni wëral leen ma ci dëkk bi takkal ma juróom-ñaar tooli alaaji Malick del yegg ci Demba mi ko joxoon alaaji Malick parce que kenn du suul jëf ju rafet c'est comme à Touba li indi maam maaram dans le Kajoor et dans le Bawol mooy Amari Ngoone Ndeela Kumba bi mu xeexee ak ma Laamin Saar ca Caareen yàlla dogal mu génn àdduna maam maaram jóge euh, Jolof euh, Jolof ñëw jaale si ko ci la yeggee barjaal ni damay waxtaaneek ak bi bi mu ñëwee waxtaan ak moom amari ngoone ndee la kumba ni ko yow day mbakke bu sëriñ sépp meloon ni yow du ma xuloog ñoom sax bay xeex ak ñoom waaye naa la boole sama jaraaf ju nuy wax Massamba fa bay juuf ngeen dem ba ca tund wa ca laa ca bawol la ko fa tàmbalee ba kadd balloo ji di frontière u euh, kajoor ak jolof fu la neex daggal may naa la ko ci lañ daggee dëkk yi ka yi alaaji sëñ tubaa am yépp kajoor ak ci amari ngoone ndee la kumba moo leen ko jox kon ku mat di fàttaliku la bu tubaa xewlee parce que bu bu bu bu ñu sant Mbàkke dëkkee Touba yàlla Bawol ak Kajoor yàlla moo ko dogal waaye mu ngi jaare ci loxob Amari Ngoone Ndeela Kumba comme tool yi Seydi Hadji Malick yi ni mu jaaree ci ci ci ci loxoy Demba War Sall parce que Demba War ñu may nettali sax ah, sëñ Abdou Al Amin yàlla na yàlla woyofal suuf ci kawam dama doon nettali ma El Hadji maanaam lu mas di ñaan xam nga Tiwaawoon gi gépp bu ko El Hadji ma bu ko El Hadji ñaanoon Demba mu dagal ko Tiwaawoon gépp bu ko ndax lim ko may ca jagsaaw mat na fukki tiwaawoon ci jamono jooju waaye ala Seydaaji Malick bu bëggee kër boo ko mayee genn kër doyal na maanaam gaa yi di tabax ay ñaar fukki kër ak i fanweeri kër ak i immeuble ñooñu jànguñu dara ci Maodo Maodo fi mu ne lu mu am lu ay bokkam am tiwaawoon dañ koy jënd parce que lam soxla woon la jëloon fa la yem mënoon na fee nekk naan damay daggal samay sët dagg ay tool yuy yaatu miire ko waaye defu ko kon képp ku di kilifa diine. Seydi Hadji Malick won na ni soo bëggee defar nit doo ko won ni ko maa la ëpp doo ko won ni ko maa la gën parce que ki gën xam nga kañ la ñuy xam ku gën Pape Sidi Fall xam nga kañ la ñuy xam ki gën bu teewee suñ kanamu borom ci la ñuy xam ki gën waaye nag booy defar nit da nga koy yar ci yar boo xam ni daf daf koy wóor ni yow mii da nga koo nawloo mais man su soo jàkkaarloog man Pape Sidi Fall mu wóor man da nga maa xeeb man loo bëgg ci man ñàkk nga ko parce que man du ma xeeb sama bopp. ndax wala xad karam naa bani aadama wa xamal naa fil bahri wal bahri wa razaqnaahu min a tayibaati loolu alquran la yàlla def ci wax loo xam ne maanaam doomu aadama képp mooy fekk ku jur doomam nàmpal ñuy defar ba mu baax nga rendi yàlla defal la ci doomu aadama rek la ko may nga rendi yàlla bindal la ca tuyaaba kon nag képp koo xamante ni yàlla dafa dogal ay nit ñëw ci yow te bëgg a dem fa yàlla bu leen woon sa bopp woon leen tabaraka wa taala ko teg ni mooy yàlla ku dul yàlla daanu nga parce que yàlla képp ay buur yàlla wax na ci alquran ni allazina yurauna wa yamnauna al maun Pape Sidi du duma oustaz nag damay bañ ëllëg nga naan paa bi da doon sàcc ay ay saara yu kenn xamul waaw te gars yi gars yi bu ñu lay déglu ñu baree bari Pape Sidi booy waxtaan déglu wuñ la pour parce que peut-être da wax xam-xam déedéet dañuy déglu ndax di nga juum ñu exploité ko te juum kenn képp dul juum muy tabaraka keneen ku mu doon da ngay waaye nag léeg-léeg ma dégg aw saar te boo yoreem xel boo déggee te yàlla nee na ki rëy amul ci man dara kon koo gis muy rëy rëylu du taalube murit du taalube tiijaan sëriñ Touba jóge na àdduna te dégguloo ni moo fi bàyyi nangam sëñ Touba sax dañ daanaka ñi ko doon dimbali mooy Cheikh Ibra Fall ak maam Cheikh Anta sëñ Touba yorul dara ba wu dara dem naa ci dëkk boo xamante ni ngordu lañ fa solli bi nuy bi nuy gas jumaa ja muy ñaxal caafura ndax ay doomam ñu yu ci bari ñu ngi jànge foofu waa kër sëriñ Fallou yeeg ñoo ñëpp ñu ngi jàngee ñaxal kër ma ñaaw ñoom sëriñ Mortada ak sama sëriñ ak sëñ Idaali donc sëñ Touba foofu amoon na fay fan waaye xaalis ba ko fekk bépp fa ko suul bi gas jumaa ji lañ ko sulli sëñ Sidil Maxtaar lañ ko yóbbul man mii filmé naa xaalis ba kon du mbirum alal maanaam yóbbu nit ci yàlla nekkul ci alal te Euh, lii Pape di doon wax sànq rek xale yi bu nu xa bu nu jàngoon tuuti Maodo ak Serigne Touba dinañu nangoo liggéey dinañu nangoo liggéey parce que li tubaab bi wax mu mais mooy dëgg le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt mais gone guy nelaw ba midi gone guy nelaw ba une te naan awma liggéey gone googu dafa amul jom mais boo amee jom saa yoo yeewoo liggéey am na tous les jours que jëfe man liggéey naa 40 ans ba commencé étage te kenn fayuma wenn weer. jaay naa tàng na ci mbedd mi teg taabal tàng na laa la wax de ma ma teg tàng na di di dagg mburu di jaay jaay naa ay marakis lu baree baree baree bare dama daan jënd ay deux cent paires de marakis su ma ko tabaski gi daan naa dem ba presque un million de bénéfice mais xam nga yow maa ngi lay romb ak samay vingt paires yi marakis nga naan waa moom li mu yor amul solo fekk man ñi doon jënd ci man daal yi comme historien laa damay toog di jaayi daal ci benn place gars yi dañ ma naan toogal waaye nu jënd daal yi waa kon neel nga ni lan ci jéeri may nettali ay histoire ils sont émerveillés bi bu ma ko waree jaayee 2000 junni la may jox donc dama daan am un million avant la tabaski un million def 500 000 peut-être plus avant avant korité gi donc nit bu bëggee liggéey dana liggéey liggéey mënul ñàkk aw ma liggéey du lu ma mën a dégg ndax man kenn mësumaa joxub liggéey mësumaa xaar kenn nit cib liggéey liggéey sii may defakus néew sax maa ko lijjantil saa ba ñëw 2S maak Pape Sidi mais du dëgg kon gone yi bu ñu royee parce que Seydi Hadji Malick fàttaliku ko Pape Sidi xam nga mooy lan fàttaliku gone nu mu war a mel parce que Maodo nag jikkoom yii ñu lay waxal yi ci ëpp bi mu koy def amul 20 ans il n'avait pas 20 ans parce que Maodo 67 ans la dund donc taxu ko fee yàgg lool 1855 ba 1922 ça fait 67 ans il a vécu 67 ans yàggut. waaye def na fi lu ne kon xale bi li mu war a roy ci Maodo ak fàttaliku gi mooy nan la alaaji Malick meloon bi muy tuut tànk fan la alaaji Malick jaar ba réussir lii mu réussir ba tey jii résidence bii ñu nekk nga xam ni euh, ñoo ngi gërëm it bu baax la président Macky parce que gis nga Pape Sidi wax baaxu nit du politique du yàqit ci sa mbaax dara Seydi Hadji Malick képp ku gis ku ko teral te sab xol seddu ca doob sénégalais lii su ma ko mënoon maa koy defal alaaji Malick ki sama alal billahi wallahi wa tallahi su fekkoon am naa ay milliards maay tabax résidence bi jox ko alaaji Malick addiya parce que jar na ko ci man kon ki ko fi def même bu dee président de la république même bu dee alali réew mi la def na ko fi mu ko war a defee gàcce ngalaama kooku loolu dafa am solo parce que sëriñ Kaolack ak fépp rek ak Touba gis nga hôpital bii ñu teg xeer yu bërki démb 46 milliards te xam nga ni Pape Sidi Pekes c'est à cinquante kilomètres d'ici kon xam nga ñun hôpital boobu ñun lañ koy tabaxal Bakel ba Ndande Kajoor gépp daanaka hôpital bi ñoo ko moom ba ngumba ngeewul donc loolu dafa am solo il faut que nit ki bu defee lu baax nga ni def na lu baax nga ni ko jërëjëf jërëjëf loolu du du wàññi dara mais Sénégal léegi <laughs> xam naa Seydi Hadji Malick war nañ koo roy ci lu bari waaye li ko war a gën a royee mooy bu kenn gërëmati kenn bu kenn waxati lu baax ci kenn yow daal Pape Sidi neel mooy président agresseur yi neel mooy mooy président sàcc si ne mooy parce que yow yow yaay moom ka waaw yow yaay yaay yaay yooyu dégg nga non xam nga yow yow yow kay dégg naa sax yor nga moto yooyu xëy da nga ciy teg ñaari booy rek ñuy këf saak yi ba ngoon ñu ñëw nga ngeen yulli xool lu ci ne mais li ñu war a roy ci Seydi Hadji Malick mooy di wax lu baax di def lu baax bañ di. bañ di bañ di bañ a jéem a taal suñu réew bañ a jéem a wax lu koy yàq man euh, Pape Sidi xam naa nag li ma xam Afrique teel ko xam teel ko découvrir moo tax giseen bi may gisee Sénégal ñu bari duñ ko gisee noonu man dama jàpp ni Sénégal a gën ci Afrique ba pare moo ci raw te gis nga li ma leen di wax nii boo de boo demoon tey jii Abidjan nga wër ko est ouest nord sud boo ñëwaatee Sénégal di nga ko gën a téye noo leen gën i tali ñoo leen gën mbedd ñoo leen gën le te am na ci réew yoo xam ne ñoo nu ëpp xaalis mais Sénégal niñ ko tabaxee wax dëgg yàlla bariwul en Afrique mais sénégalais yi dem nañ ba fi mu ne boo waxee gëmloo nañ sax gone yi ni espoir sax waratu leen ko am parce que réew mi yàqu na réew mi tas na réew mi baaxatul as ay amuti mais ku naan Sénégal amuti gor yaa dus gor yow kay boo mënee waat ni gor nga as gor am na fi mais ay gor amatul koo koo dégg mu naan gor amatul du nit ay gor ay gor am na fi. nit ñu baax am nañu fi il y a l'espoir man yaakaar ji ma amal Sénégal mooy bu ci kanamee tuuti sax nun dañuy fay chômeurs comme ay nit ñu ta ñu tayel la ñu yor pétrole ba ak bi après nu séddale leen ko ngeen di taxawaaloo ko nelaw ñu di leen ko jox bu soobee yàlla waaw parce que loolu dafa am solo nelawkat yi waa gis nga benn waaye ngi nii xaw ma caméraman bi sax dama ko war a jëlal ma ngay nelaw ah ah non moom daa sonn kooku daa sonn kooku jàmbaar la wuute yow. waaw yow léeg-léeg da ngay baali ba guddi <laughs> boo boo ñëwee di nelaw mais nañu nañu jéem a seet xam ni euh, roy mag ñi baax na mais li li gën ci li gën mooy jéem a mel ni ñoom jéem a dox seen doxin mësu leen dégg benn yoon alaaji Malick ci benn affaire mësu leen a dégg benn yoon digganteem ak mag yi diine yi fi newoon muy góor gi Ablaye Niass ah Cheikh al Islam muy góor gi. Euh, Boukounta muy ñi fi newoon ñëpp amu leen kenn ku ngeen mas a dégg ñun la Seydi Hadji mas naa wax ci moom lu waxuwut wala mas naa yéene dara jëmale ko ci moom lu dul lu rafet Serigne Touba fekk na ko njaarnde am fa ñetti fan Seydi Hadji di ko jiite julli di ko jiite julli saa yu maw na ne ma Sëñ Touba demal mu ni ko demal parce que mbokkama ñoo bokk benn maam ñoo bokk benn téere bokk benn xibla bokk benn diine bokk benn Muhammad sallallahu alayhi mi nga xam ne ñoom ñaar dañu koo bëgg ba ràññiku ci ci réew mi waaye ñooñu naka nga leen di gëme naan alaaji Maalik Gay sama sëriñ sëriñ Tuubaa sama sëriñ te saa yoo xëyee di fen ak a saaga ak a kàcc ba jant so yow yaag alaaji Maalik jotewu leen dara ah waaw maa abla ablala xam nga ah, mu ngoog maa Mahi ñu ngi koy ah, ziar bu baax kooku nga xam ne dëgg-dëgg man sëriñ bu ma jaaxal la woyof tooy tooy tooy tooy tooy ba nga xamante ni boo ko boo boo yow boo fa demee sax yow yaay mujj yow yaay mujj ruus man sincèrement ku mel ni moom daal gisuma ko te daje naa ku ne nag waaw di ñaanalit xalifa bii fi ne muy sëriñ Babacar Sy Mansour xam nga ma nett li la benn histoire diggante baayam ak maa bëgg Maodo sëñ Mansour bal xaw mi da doon dem tay bañang li may nett li ne nag lu ci bari sëriñ ba Basiiru ñang mu baax ma moo ma ko nett li te alaaji Malick tëdd naag alaaji Malick juróom-ñaari at ci bennum néeg nee na li ko jaaxal bu masaana nelaw ba yeewu ci guddi gi day fekk alaaji malik di julli mbaa muy werd bu nelawaatee bu yeewoo fekkaat ko ca musta gis alaaji Malick mu nelaw te ils ont partagé une chambre pendant sept ans sëñ Bachirou Niang te kooku wàlliyu la ñi ko xam xam nañu li ma wax alors Seydi Hadji Malick sëñ sëñ sëñ Mansour daf doon dem daf doon dem Taïba di seeti jarbaatam du Fati Ñang moo jur Sëriñ Bachiru Ñang ñooñu waa ngeet lañu waa Jolof lañu bi muy ñëwee mu ni ah man kat mënumaa romb maa bëgg Maodo te jaaru ziyaar bi mu ñëwee maa bëgg Maodo nuyu ko ni ko ma ñëw daal di dem jëlib gàtt tafeet ren di mu ni ko ah waa maa bëgg man damaa bëggoon a jàll tey ba rek mu ni ko ah xaaral ñu defaral la nga ndékki daal ni ko ma ñëw dem jëliw nag ñëw yeew sëñ Mansour ni ko ah maa bëgg ñun dañuy dem Taïba de mu ni ko kon nga dem ma rey nag wi ma rey faat caam rey nag wi dajale ko soxnaam sëñ suur yendu kon xam nga dëgg-dëgg ñu nag Tiwaawoon yàgg na yàgg na lool te El Hadj Abdoul Aziz bu masaana ñëw sama kër baay yow ci ma maa ko mu gis ndeysaan booba mi ngi yor idée bu ñuul ba mu jógee Jaksaaw romb bitigu sama baay ci tali bi pëna bi ni tel pneu oto bi waaye bi mu yëgsee avant muy jox loxo sama baay dañu ko maa toj sama pneu man man mii maa toj sama pneu ndax doomi Malick si wërta romb doomi Aliou Tall te nuyuwu ko keroog pneu ba ñu ngi ko defaree ji ngaay jamono jooju parce que boobu amagunu vulganisateur ware kaw kaw la <laughs> xam nga li ma la mu toog di waxtaan may dégg mais li doon wax ak sama baay ci laa xam ni kii dëgg-dëgg ku wàcce boppam la toog ci banc di eh, booba sama papa ngi jaay ay pañe guro am na ci bun daj mu ciy teg loxo bi nii di tànn doom yi ko neex tànn ay doom jox ma tànn jox ñi ko wër ñépp sama baay a ngi kontaan am na benn benn benn benn benn jamono ah, sëñ Bachirou aussi moo ma ko nettali nee na sama baay daf ko woo sama baay daf ko woo jox ko ñaari xar ni ko demal joxal ma ko alaaj booba tabaskee ngi jub si nee na ñu toog quelques jours alaaj Abdu ni ko man day damaa soxla fukki xar ak ñett nu ñu toll nag baax na ma bëgg nga waxal ma ko Lamine dégg nga Pape Sidi <laughs> ma bëgg nga waxal ma ko Lamine mu ni ko ah waa sama nijaay xar sama nijaay jox na la ñaari xar fan yi rek di mu ne ko waaw mais yow demal wax ko rek demal rek nga ni ko nga ni ko ah, ah, sëñ Abdu da koo soxla moom lamin moom bu ko déggee bu ko manee dina ko def ke bi mu ñëwee sëñ Basiiru nee na dafa ñëw toog a ah, waxul dara son papa di ko xool mu di ko xool ba mu yàgg mu ne ko a ah, waa sëñ Bas yow lan la dafa mel daam loo bëgg a wax te mënoo koo wax de mu ne ko ah man kat wax dëgg yàlla danga ma jox fan yee rek ñaari xar ma yót ko alaajab mu yónni waat ma ni ma dafa soxla fukki xarak ak ñett ni ma naa la ko wax ah mu diis ci man mu ne ko mais yow loolu lu ci saw yoon te ngaa wax mu daal di yebal ndeysaan ñu dem jëli sàmm bi ñu woo ko mu ñëw ñu tànn fukki xar ak ñett dégg naa keroog bi ñu ko indilee alaaj Abdu presque rangooñam génn na te kooku mooy suma ma bàyyi parce que booba nag dafa amoon alal yor fasi course nekk traitant di jënd gerte jamono neexoon lool ci moom jamono jooju waaye lépp lu alaaj Abdul Aziz mas a bëgg su ko sama baay yëgee fañ na ko ak sama yeneen baay yépp nag parce que dëgg-dëgg ñoom ñoo ko Seydi Hadji presque c'est même famille mais daal gone yi roy leen ci alaaji Malick ak dox doxinam parce que boo koy seet nag dëgg-dëgg à àlla base mooy citoyenneté parce que un citoyen dafa war a nekk citoyen citoyen dafa war a nekk modèle mais ñun nii ñuy doxee léegi nii ñuy saagante ci réew mi nii ñuy yàqantee ay der ñu loolu ñi ci bokk amuñu dara ci alaaji Malick amuñu dara ci Serigne Touba koo fi gis xam nga gone gu am ñaar fukki di saaga magum juróom-ñett fukki at googu gone alku na te day gàttu fan gàttu wërsëg bari ay ndogal parce que mënta ñàkk dafa am loolu gone gu ko def yàlla toroxal la mooy saaga aw mag toroxalu mag ñàkk leen a joxub cër billahi waat naa ko ci alquran gone gu ko def doo gudd fan doo barkeel te dinga nga bari tolof tolof ci sa àdduna te nag sa sa sa première chance mooy wata fel la nga dee mooy sa première chance ndax am na torox yu gën a metti accident Pape Sidi sa morom yépp tekki te tekkiwoo woo doy na toroxte te loolu dara du ko def lu dul gone gu ñàkk kersa xamadi réew lu la neex wax cim réew te Sénégal gii am ñu jóg bëgg koo bonal gisuma réew mu ko gën gisuma réew alaaji Malick moo ko wax sax alaaji Malick nee na màkkaanu gën mag ñu njëkk bàyyi ñoo leen gën ñu mujj yow alaaji Malick wax nga bëgg koo weddi ni tey kenn baaxatu fi kenn du fi baax du ma wax ak kenn lu baax bone ne Pape di baax na hmm? waaw waaw mais ñooñu nag xam nga il nu gis nga Pape Sidi billaay bu ma moomoon télé bi léeg-léeg ma saaga leen ci daa koo moomut rek mais dañ noo fat on fait trop de politique dans ce pays te ça n'a aucun sens te amu ci ku bëgg Sénégal ñoom ñëpp seen poste la ñu bëgg lu ca dem billahi amu ci kenn ku Sénégal jaral ñaari dërëm parce que c'est pas des c'est c'est pas de bons citoyens am réew boo fa nekkee da ngay yaakaar yàlla te liggéeyi mais doo doo def sa sa mbir rek ci parce que nag politique léegi aussi Pape Sidi li ci nekk dafa xaw a garaaw ginnaaw ku politique sàcc am xaalis ah moo tax gars yi riir wuti ko ku politique boo sàcc ab xaalis sax ñu nit ñi manifester la bu ko après ñu def pression ci état bi ñu ñu ñu bàll te sàcc lañu ah pourtant am na ku jël yaari ginaari jaambur ma nga fële ca rëbës te yaari ginaar képp la sàcc. te xëy nag yaari ginaar ki mu ko sàcc sax bu ko doon baal ma àq mu baal ko ndax yomb naa baale mais 2 milliards 3 milliards man xam nga ku leen baalit man baale wu ma sama xaalis de man sama xaalis baalu ma ko kenn ku ma sàcc bu ma man bu nu fu bu nu reyeb sàcc sax dérangé wu ma wa voilà ah nga jël di bu nu sàccee sax ñu di ko manifester moo tax politique ñëpp daw làqu ci parce que léegi ñi gën a ñàkk jom ci réew mi ñooy politique loolu moo xew léegi ñi am jom mënatuñ ko sax a def parce que il faut nga mokkali fen foo nga mën a fen nag ba doon ci expert comme Pape Sidi ni mu koy defee parce que boo mënul noon yow kay yaa ma tooñ de moom kay di nga doyal sëkk moom ah yow léeg-léeg da xam nga li garaaw sax mooy eh, la la sëñ Abdoulaat waxoon ni <laughs> njàngum tubaab li ma ci jaaxal mooy ki ko jàng dëgg dëgg dëgg da koy jàng ba yow mi muy nax sax bu la naxee doo xam ni mi ngi lay nax <laughs> xam nga xam nga loolu nag moom boobu xam-xama bon moo tax vraiment nañ jéem a góorlu te jéem a fexe ba eh, wut ay modèle yu mel ni Maodo. modèle yu mel ni Serigne Touba modèle yu mel ni maam Boukounta fii ci Ndiassane modèle yooyu ak euh, góor gi Ablaye Niass góor Cheikh al Islam Ibrahim Niass ñooñu ñoo di ay modèle doo am ñu mel noonu ci am réew xoolal Cheikh Umar Foutiyou Tall fa mu des ca Bandiagara ah nga xam ni ndeysaan dans le Massina foofu lu nekk daj na ko fa pour l'islam bi euh, góor gi ñuy wax nii keroog bi yaayam yóbbante ab sër ci Cheikh Umar Mauritanie ma yoro ak euh, góor gi yuqum géeg ñoom seen di ko yóbbu dem ba ci yoon wi ñu jaaxle yoratuñ luñ lekk ñu jaay sër ba xaw ma dañ koo tayle bi ñu ñëwee Seydi Hadji Malick euh, Cheikh Oumar bi ñu ko joxee sërite bi ba mun leen ana sër ba ku ne xool sa moroom ah sër ba dey moom taal dañ koo def nii def naa mun leen nag gis ngeen ki ma yónnee sër bi lii ma yor nii ci loxoom lay mujj muy tarixa tijaan bi moo tax Seydi Hadji malik dëgg-dëgg nit la koo xam ni yàlla na nu ko yàlla fayal si yàlla na yàlla yokk say leer li nga fi bàyyi it yàlla bu ci dara yàqu te incha allahu dara du ci yàqu ndax gisagunu benn benn doomu Seydi Hadji Malick bu nekk ci lu mu warul ne la ko tàmbalee ci sëñ Babacar benn fi jógee 1957 ba ci El Hadj Abdoul Aziz Dabakh mi nga xam ne dëgg-dëgg 40 defe naa 40 ans la zéro euh, moom la ñëpp di wax ba ci sëñ Mansour borom daara ji ca ca xorom sa ca ca ca yéwén ga ca baax ga ca xam-xam ba ba ci euh, sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum nga xam ni moom xalifa gi daanaka moom <laughs> da koo da far bàyyeek ñoom ndax ki nga xam ni moo di Al Amin sëñ Abdou Aziz Al Amin mas naa ko ni cekkel xam nga yow dañuy wax naan yaay porte parole famille El Hadj Malick mais yow yaa porté kër El Hadj xoolal lu rëy lii nga xam ni Pape Sidi euh, Cheikh Abdoul Aziz Al Amin def na ko xam nga mook Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum ñoo bokk ndey ak baay bi nga xamante ni El euh, Hadj Abdoul Aziz dem na am na ñu jógoon bëgg a tas kër gi am na ñu jógoon bëgg a tas kër gi moom mu bokk ak Cheikh Ahmed Tidiane mi war a mi mi mi mi ñenn ñu doon wax naan mooy toog ndey ak baay dem lafu ci wetu doomi baayam sëñ Mansour boroom daara ji nekk porte parole am nekk ndawam nekk léppam xam nga loolu moo tax ma ni ko yow yaa masa porté Tiwaawoon wax dëgg yàlla xalif général gi bi muy yëgsi ci moom fekk na yore na ko presque plus de quarante ans parce que bu leen fàtte ni moo doon secrétaire u Sëriñ Babacar Sy te nit la koo xam ni da li ma neexoon ci moom dafa am fit dafa am ngor daf ma daan daf daan wax ni <laughs> bu ma nekkee Tiwaawoon gars yi bu nuy ñëw di di ko seet en général xam nga lu ñu koy xëyee ordonnance location bu ma fayeegut kër ga dara newu fa yooyu rek lañ koy wax moo tax ndeysaan daf am na benn bés mu de mu mu dajub dajub alaaji góor gi góor gi ngal gu njaay ngal gu njaay bu mbooro yàlla na yàlla xarit ko àjjana sama xarit boobu keroog dañuy dañu leen yéen de leen toppandoo murit yi waay di joxe ay addiya ah parce que waaye sëriñ man de man de ay ordonnance rek lañ may indi la ki facture ordonnance facture dépense loolu la mas di joxe boo demee fi mu ne tabaar fakal la loolu ba léegi mi ngi dund di nuyu bu baax nag ak a ziyaaraat sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général di nuyu soxna Ayda Sy soxnaam soxna Ayda Sy ñoo bokk bàyyi doomu alaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh la moom moom suma xarit la xalifa bi sax moom maa moom taxul nu dooni gaayen <laughs> taxul nu dooni xarit lool waaye soxna Ayda moom sama xarita ndax baayam moo doon suma sëriñu baay du dëgg te xalifa bi daf ñuy tooñ maak moom toujours daf ñuy tooñ waaye di nuyu aussi Maodo si bu alaaji Abdoul Aziz si Dabakh sëriñ Maodo yàlla na yàlla guddal sa fan te may la wér di nuyu sëriñ Habib di nuyu Sidi Ahmed ca Jaksaaw maam Alpha si di nuyu Cheikh Mansour si moom Dabakh nga xam ni moom rek laa miinul woon bu baax ci doomi alaaji Abdou yi te loolu dañ na sëkk ndax euh, déggante nañu te incha allah bu ma delloo dakaar dinaa ko dindi ba mu xam ma lool ma xam ko lool ndax doomi Alaaji Abdu ak doomi Lamintaal munuñu dëkk ci àdduna te duñu xamante kon nag kontaan naa ci te ba ma ko jotee xam naa ne su ma doomu bàyyi laa jot di ziar euh, ma Badou si Badou si di nuyu seen sëy Alioune Sarr parce que seen sëy bàyyi faalu maam Abdoul Aziz keroog dama dégg ko dégg nga wax ko ma ne non Pape Sidi mii daal artiste la quoi parce que seen sëy bàyyi faalu Alaaji Abdoul Aziz si la daf ko bëgg Alioune Sarr yàlla na la fi yàlla bàyyi. xam naa alaaji saar bu ko déggee sax commencé naan eh eh déggal alaaji Sarr nga ca moom xam nga ndeysaan moo sën sëye bokk ndey baay mais damaa xam sën sëy rek mu defee ne moom li ni ma meloon ci moom daa wàññi ko ma ko ah sën sëy de wax dëgg yàlla damaa duggoon ci benn njaga njaay léegi njaga njaay bii daw ba mu yàgg mu paan benn 4-4 romb ma fa am kilim di ma yóbbaale xam nga di ma wàcce waat di dugal ci <laughs> njaga njaay bi mënta ne sën sëy yàlla na la yàlla fay bëgg gi nga bëgg alaaji Malick ak njabootam yépp bi jaay séddil wu jot kon nag bokk yi loolu la ñu indi rek sa papa njool fu waaw njool fuuta maa ngi koy nuyu ak soxna Lalla Ñang soxna Lalla Ñang bu sëriñ Bachiru Ñang bu Tayba ak sëriñ Moustapha Ñang ah, di jaalaat bu baax nag alaaji Ousmane Ñang eh, taalibeem boobu atay eh, sekk gaañu ca Tayba foofu la toolam ya ne yal na yàlla woyofal suuf ci kawam ndax loolu bu amul woon fii lay toog Seydi Aboubacar Taalit bu fekkonte ni du eh, sarax si mu nekk tey fii lay toog waaye nag yoon du du du du bu yoon jeexul waaxasul di jeex ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal aussi Alaaji Njaay ak euh, soxna Marème ak waa télé bi yëpp ak caméraman yi euh, sama monteur ma ngi nii sax toog Omar Diop di jàmbaar joo xam ne tabarkàlla teel a xëy guddee wàcc yow li ngay am yàlla na gën a barkeel yéen ñëpp nag gars yi nag bu ma génn ngeen naan damay léebu de léebu ma damay gërëm nguur su jàmbaare Omar ndax lu ma teel teel a xëy biroom laa koy fekk su may wàccit fa laa koy ba loolu nag fokk ma wax ko yéen ñëpp jàmbaar ngeen waaye Omar moom bu ma doon notee dina ko may 20 sur 20 Pape Sidi yow dina la jox 3 sur 20 soobee yàlla waaw Pa Pama yow di nga am 7 sur 20 7 7 nga banaam yow wala 6 sax 6 ah xaaral mun naa jël <laughs> waa xaaral ma ñëw <laughs> xam nga yow dangay ngay corrompre sax en direct xoola muy tàllalub junni naa ma jëndal ndekki <laughs> ok kon nag euh, wax dëgg yàlla ñoo ngi tàggoo di nuyu bu baax euh, suñu xarit colonel euh, Ablaye Sow Ngom Ablaye Sow Ngom nga xam ne taalube cheikh bu mag la ak Mamadou Makhtar si Cissé Mamadou Makhtar Cissé ancien ministre moom it di taalibe bu mag ci kër gi nga xam ne ñoom ñoo yor sax liggéeyu jumaa ji di ñaanit jumaa ji yal na ko yàlla yeggale xam ngeen bin koy tàmbali waa kër bëgg Maodo indi nañ fi onze million kon nag xam ngeen ni ci lanu bokk yal na yàlla yeggale lépp te bu ñu demee it dinañ jógaat jéem a dajalewaat parce que jumaa ji nag dëgg-dëgg taalibey tijaan yi mën nañ koo defar te du yàgg kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah jërë ngeen jëf 23 catégories, plus de 18 pays. Elle a été la seule à être nominée dans Usher TV au Togo dans la catégorie meilleure Elle est la seule qui représente dignement le Sénégal. Elle répond sous le nom de Sophia Cham. Oui, Sophia de la 2STV a été nommée pour représenter le Sénégal. Ni ngeen mën a def ba voteel ko yomb la daw leen gaaw ci Facebook ngeen recherché Usher TV catégorie chronique ngeen fekk fa photom photo Sophia Cham waaw gen aimé ko commenté ko dal ne je vote Sophia Cham et partagez-le pour avoir le plus de votes sinon bu ngeen demee ci page Sophia Cham ci Instagram wala Facebook lien bu leen di yóbbu directement ci fi ngeen mën a voter nous comptons sur vous pour qu'elle remporte ce prix pour le Sénégal et pour la 2STV vote yi nag dinañ arrêté le 28 juin 2022 la cérémonie aura lieu le 23 juillet au Togo à Lomé bonne chance Sophia Thiam Ouma Selpa présenté wu. putain. sa toqal lan la ku jur lii. man. manque de civilisation. li ñaa ngi nalaw ngeen ni pep pep pep. mais moo jot. yow xaaral ma ñëw la pétition yow réewoo sax. mais lay vingt ans de service mosuma gis xale bu mel ni yow. foo mos a gis kii noonu quatre heures matin. en plus sa baat bi neexul yaa ngi tiital dëkkandoo yi. lay baat daam ay lëb yu ne sa ginnaaw. yow pire mën ngay wax lëb. naayim kat koy xool di ko dóoru. sama doom yi ma am yëpp laay donc moo mel ni mu mel ni est-ce que sax ni mu mel ni du def ko doon. fan fan la koy doonee. mais non. yow mbay kañ ñu jógee Paris. pour moom kër gi mooy Champs-Élysées. mais là tu commences à déplacer les bambes. sa dund lii la. point fort. et pourtant dama ko ooyee faloo. mais li ma yara daal nag. mais ndey contré la mag ñun. bu xëyee toggoo ñu damadaa yàqal ñu ko. bu la tiinee fàng duñu xool. un plat de na woon moo ngi ci restaurant yooyu di ak ay yooyu te dóorkat la. waaw kan mooy fay. xanaa da ngeen fay yàgg. barki yàlla sa pays est un malentendu. sa comportement bi nii dafa am lu ñu koy woowee. je comprends pas quoi. activisme lañ koy wax. ah parti ou la mort. je t'élève au grade de chevalier de l'ordre national di bànneex. ok daa mel ni sa baay la de. mais paa yow nan nga mënee loolu yow. dem gàllankoor ñoxor di saan lëmbal man nan la ma nekkee. laay jara lan la. waaw dama juwaale satala yi. xamoon naa ni di laal sama satala yow yaa tax ma takk ci morso. ah kon yow da ngaa màndi ba tey. déception de vie laay wax. mooy yaakaar bu tas te xam ne la majeure partie des jeune instants yi moom la ñuy dund nga xëy am ay besoin war koo régler xamoo fan ngay jàpp nga am benn colère bu nekk ci yow nga bëgg koo exprimer nooy def est-ce que loolu noonu un jeune qui vit est que mën na comporter woon neneen nunu laay ni muy comporter woon. mais j'en ai ras-le-bol avec toutes ces histoires. à défaut de les soutenir il faut au moins ñu décrypter leur message. te man xam nga man Sicap damay porter drapeau bi du nangu kenn ku ko tilimal. te aussi il faut pas oublier l'avenir de ce pays en dépend.